réew mi ndokkalee ci weeru koor ge shahru ramadan moo bari ngëneel réew mi ndokkalee ci weeru koor ge ramadan moo bari ngëneel yërmande njéggal njot ci safara asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateurs yi ñuy sétane ginaaw bi ñu sante julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant sunuy ñaari waajur ñi ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp tay nak seen émission gan koor ñew ak yeen ci gan gu baax allah gan gu tedd allah muy kan soxna nday Marème si Djamil soxna nday Mariam si Jamil nak ku ko dégg macha allah xam ne doomu Serigne Moustapha si jamil la borom Fass macha allah mu Serigne Babacar si mu mam Cheikh seydir Hadji malik Sy radiyallahu taala nu ko defé ñu ni ko ziaré ko dalal ko tatagal ko ci sen émission ganu ko badian nday Mariam si Malik Fa wad ñi ngi lay nuyu bu baaxa baax di la ziyaara di la dalal jamm ma ngi di delo nuyoo bi mhm. asalaamaaleykum auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil aalamiin maaliki yawmi diin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdina siraatal mustaqiim siraatal laaziin asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Asfiyahi ñoom ñi ñëw tey ci bërëb bi tey Tiwaawan pour ñëw ñu waxtaan ci Seydi Djamil di nuyoo mboolem ñu ma bokkal émission bi Euh, soxna Fatou maa ngi lay nuyu. di nuyu ñoom maa Omar ñëpp. Mhm. ak di nuyu Omar. Mhm. waa di nuyu ñoom Ndiaye ñoom Jabel ak ak ñi ngeen àndal. Mhm. Ah, di leen ziar. di nuyu waa Tivaouane. Ah, di nuyu Sénégal di nuyu àddina bi yëpp tam. parce que émission la boo xam ne ñëpp la intéressé. waaw ndeysaan jërëjëf si Malick Fawad si Jamil la ànd tey. sunu émission ganu waaye it macha allah ñu am ay gan yu tedd ñëwit ñu ñu àndal. Mm-hmm. ku ci mel ni oustaz Dame Diol macha allah ñu nuyu ko mm-hmm. ziar ko tatagal ko jox ko wàcc mm-hmm. wàccuwaayam waaye it macha allah nuyu Serigne Ndiaye Jamil. moom ak équipe bi mu àndal yëpp ñu nuyu leen jaay jaajëfal leen bu baax a baax. bu ñu tuddee xadara Seydi Jamil nag dafa am nu mu tuddee macha allah te bu nu amee eh, yaay ju mel ni soxna ndey Marème si Jamil balaa mu yëkkati kàddoom xam naa ni Hadj Ndiaye foog nga yëkkatil ko. daal di koy yëkkatil seen national rek macha bu ko mm-hmm. defee ñu daal di mën a eggale mm-hmm. bil xilaasi wa bil mamnuuni aqilana ixlaasa ya rabbi wa tawfiqa wal wa bil xilaasi wa bil ناس فايق درارا قد جئت يجيب السودان والغرارا وبالخلاف وبالممدوح أعطرنا الإخلاص يا ربي والتوفيق واليسر سيلت مزنا على خير البرية ما قد أنزل الله في أمداح الصورة وبالخلاف وبالممدوح عطلنا إخلاص يا ربي والتوفيق واليسر قد سقط في سيرة المختار شافعنا والنورارا وبالخلاص وبالممدوح أعطي لنا لا يا ربي والتوفيق واليسرى وما أتى خالص الإبريد مجلسه اليتيم لدى أرجاء اعتذرا العسي وبالممدوح الممدوح لنا إخلاصا يا ربي والتوفيق واليسر النبوي في مدائعي على الخرائع كم أبحمت من شعراء وبالخلاص وبالممدوح أعطي لنا إخلاصا يا ربي والتوفيق واليسر رسعت من بعد ما وسعت من عدم النزر لؤلؤا نصارا وبالخلاس وبالممدوح أعطلنا رأس يا ربي وتوفيق واليسرا رصاد من بعد ما وشعت منحته دولار معنى الوزن لؤلؤ نصارا وبالممدوح أعطي لنا إخلاص يا ربي والتوفيق واليسر أديت فرض مديح ثم نافلتي وأنت تقتضي سوء الأنوار والأثر وبالخلاص وبالممدوح أعطي لنا أرسلت محكي مرام السام يشهد كتابنا خرة أبصار إذا عصارا ومن خلاس ودي الممدوح أعطينا وعسى يا ربي والتوفيق واليسار يا رب macha allah macha allah Njaay macha allah Njaay Jamil defe naa béggal nga xool yëpp ci mbindum Serigne Babacar Sy radiyallahu taala soxna ndey Marème si Malick Fa Wade comme ni ma ko waxee léegi nee naa kii seetaan mhm. te xamul jëmm ji toog mooy soxna Ndeye Marème Sy bint sëriñ Moustapha si Jamil mhm. na sëriñ Babacar si ibna maam Cheikh Seydi Hadji Malick si radiyallahu taala anhu mhm. bëggoon naa laa tooñ sax xam naa ne seen si dañoo ragal koor dégg naa ko for naa ko ci weeru béy <laughs> waaye xam naa ne fi mu ne macha allah sa xol tooy na lii nga xamante ne Ndiaye Jamil yëkkati na ko macha allah si Fa Wade boo ñu doon sa bopp rek tey mhm. ana kan mooy soxna Ndeye Marième si Jamil waa soxna Ndeye Marième si Jamil tey yaayu daara la mhm, te yàlla ñu booleek booleeg sëñ Bay Abdou ñu mhm. indi ma fii ci Tiwaawan ah ma nekk fii di sëy mhm. ah, tey ji njabootu Seydi Jamil yëpp bi sëriñ tabaxee kër gi dafa ne ah fii daal dalu ko Seydi Jamil la depuis vingt deux ans fii la ñuy nekk lépp lu mas a xew rek même Omar cameraman sax tout le temps des <laughs> ñëw fii comme ça lépp lu ma sa xew ci taamu rek njaboot Seydi Djamil fii la ñuy mhm. ah les en même temps na ay études mhm. bon après ma formation mhm. def euh, informatique def euh, analyse programmeur bah dama njëkk def programmeur def analyse programmeur fële IFE waaw def stage IBM mais après nag finalement mu jur aboutir daal. parce que jamono boobu sama baab dafa feebar maa nekkoon ak moom. Mhm. boo desee ce fait que ma bàyyi lépp nekk si moom daal. bon après nag bi mu demee après nag ma sëy. Mhm. loolu moo tax euh, affaire bi mu jur aboutir. mais mënoon naa nag def projet yu bare bare. yu mhm. parce que bare nañu mooy orienté ci sama salle bi. bare na ay kii yu ma tam. mais malheureusement daal <laughs> maa ngi toog nii. ndeysaan waaw. ndeysaan jërëjëf soxna eh. Ndeye Marème Sy Djamil. Eh. macha allah di doom ci Serigne Moustapha si Djamil comme ni ma leen ko waxee. Eh. waaye mënuñoo wax soxna Ndeye Marème Sy Djamil te nag waxooñu kan mooy dëgg-dëgg Serigne Moustapha Sy Djamil. ak jaar-jaar bi nga am ak moom macha allah ak say biir kàddu legui for nañ la sax ni bokku na ci li nga xamante ni tax na eggale say étude ba mu day nga nek ak moom macha allah kon koku jégué won nga ko lool mm-hmm. amna ben relation bi ngeen amone en tant que sa wujur bu góor euh, bàjjan Ndeye Marème kan rek moy Serigne Moustapha Sy Jamil Serigne Moustapha Sy Jamil mm-hmm. pour wax ci mom day xat parce que dimension spirituelle am mm-hmm. dimension intellectuelle am Mm-hmm. ak éducation de base am parce que booy xool comportement ci Seydi Djamil nga koy gën a gisee ndax Seydi jëmil nekk na ku dal koo xam ni mm-hmm. euh, euh, benn place la toog mm-hmm. soxlaalul kenn dara dañ ko yàgg woowee sa numéro téléphone nekkul ci état mosoo leen a woo mosoo leen solicité sollicité te mosoo jëflante ñoom dara Euh, sëñ Moustapha Senghor mës na ko seet si mhm. recevoir ko mhm. léegi euh, mu ni ko man bu ma dee ñëw pale du ma ñëw di la bett mhm. kon yow xorma bi ma la jox yow ma boobu nga ma war a jox bala ngay ñëw danga may avertir sama papa du ko recevoir sa bàjjen mu ñëw fëgg mu ne ko umu daaj bi bunt bi mais du mu recevoir Senghor waaw kon xam nga rigueur boobu ak fulla ak fayda jooju dafa jafe soxlaalul kenn dara. Euh, yelwaanu taalibeem lay dunde bu ko ko mën a jàppale jàppale ko ndax ñooñu. leneen mooy doxal seen biir lu dul ay ndimbal. ñoom ci baatin lañuy dox. waaw ndax ñoom am nañu secret yoo xam ne bu ñu ko defee. Euh, dañuy jékki saa rek alal duñu xam fu mu leen di jóge waaw li maam moo doon woon këtt di jon na aaja faju moom ci loolu dund dafa doy loolu mu am moom. waaw. ndax euh, jéemul solicité kenn mhm. moom mi ngi toog fi mu toog rek mhm. euh, loolu la tontu Ousmane Camara doon wax ni moom dafa yéemu ci Seydi Djamil parce que yi mhm. ko jaaxal ci Seydi Djamil mooy heure rendez-vous du ko raté bu la nee quatre heures quatre heures la soo ñëwee yaa ngi fekk mu toog di la xaar du raté rendez-vous te daf ñu yar ci rigueur euh, ba nga xam ni ñun Euh, loo gis ci àddina même ba ci taal lampe sax dafa am heure boo xam ne bu jotee pour taal làmp bi mhm. yow yaay ñëw taal ko mu xay moo ko daan taal wala léeg bu fa nekkulee ma taal wala maam dara mhm. waaw daf ñu exiger ba ci loolu mhm. ga bu fa déggee bruit daal ni ay dër euh, loolan la laajte lu xew lu maanaam daal ni mu géré woon këram euh, ma Demba Ndiaye mës bi mu ñëwee ci dëj bi dafa ni nan la qui donne euh, Seydi Djamil donne gérer ça. parce que li yep gestion la mais moom mi ngi toog benn place demul dikkul. Mhm. kon lan mooy secret bi. moo tax euh, sëñ Ali Cissé bu soleil bi bindoon le culte de la discrétion bi mu bi mu bi mu nalawee. waaw Lolo tax nak bon waa kër Seydi Djamil euh, Seydi Djamil dafa orienté njabootam ci jàng. Mhm. jang alxuraan jàngum école. Mhm. ba nga xam ni. Euh, ñoom ñëpp ay intellectuel lañu ndax euh, euh, bi ñu nekkee Saint-Louis sëñ Mansour ak maam As ak sëñ Babacar ñoom ñoo nekkoon Saint-Louis ci sama maam tonton Samba Diama moom huissier de justice la woon moom moo ñëw benn jour rek jël xale yi di yóbbu sa maam ne ko foo jëme xale yi mun na ko dama leen di inscrire mun na ko noon ji dañ ma leen dénk il faut que ñu ñaan ndigal sama mam daal di ñew and ak sama tonton ak seigne mansou ñu tiawon. Tiwaawan maam mhm. sëñ Babacar ni ko lu wank di dox nor mu ko ah sama jama de mo bëgg jangal xalé yi mhm. mu ko joxna li ci ndiga loolu jar won ngay ñew ndax jamono bis du ñàkk sëñ Babacar ni bis du ñàkk mhm. dinañ ko soxla tay loolu mo ñew ni te ñoom seen formation ci walu alcorane nag macha allah. tey sëñ Mo, installer installé le système informatique. de la DTAI. système informatique. Mhm. sëñ Babacar moo ko fi indi au Sénégal. ce que? <laughs> installé DTIA yi dañ ko wutal service sax. Mhm. fi ministère des finances dañ ko service DTAI. yi euh, euh, en face fili fili la la la nekk euh, foofu la nekkoon. loolu moo jur gaynde bi nekk problème bu mës a am ci informatique ci Sénégal moom la ñuy woo moo ko doon gérer tey li may wax sëñ su Djamil mën na ko yow acteur du développement yaa ngi travaille dans deux banque de développement loolu amul fenn di jaabante jidda Côte d'Ivoire jidda Côte d'Ivoire <laughs> Babacar Ndiaye dafa naan bu sëñ su ñëwul duma ma def réunion bi Mouhamed Ali day ànd ak sëñ suur ba waa biddi ni ko lu xew lu tax sëñ Mansour rek mooy tukki ñu mm. pourquoi ñun ñu dem jàmbaar la ci liggéey parce que lépp lu muy def même ba ci rapport yi naar lu ñu ko def moom moo koy bind fu mu dem ak travers le monde nit ñi bu dee Chine bu dee asiatique yi bu dee ci golfe yi bu foo mënti dem le ministre des finance koweïtien bi sëñ Mansour àndee yi daf ko ni kii na ko téye sa fukki loxo parce que sëñ Mansour moo ko formé ci bureau kon loolu nekk na at boo xam ne ñun mënuñu mënuñu ko évaluer kenn ku ci nekk mhm. ah ñoom Mamas Mamas nekkoon na fonction publique mhm. français njànge sëñ Cheikh expert comptable mhm. bon sëñ Habib docteur sëñ Malick mu ngi ONUDU ñoom sëñ Ahmed Ahmed mii tey euh, mi ngi nekkoon Ndar bu dul woon euh, mi ngi woon ministère de l'hydraulique këram mi ngi woon ci biir géej gi dex gi mais sëñ Sow moo ko na bàyyi liggéey bi boobu mi ngi ci feebar bi sinon kon tey Ahmed ci ñiy contrôler pétrole bi ci lay bokk. waaw mais loolu yëpp mënu ko tooga rek. Mhm. parce que suñu Ahmed tey moo nekk ci kër ga wutu fa ñëpp nag. Mhm. di gérer. waaw euh, jàppale sëñ Mansour. Mhm. bu baax a baax. waaw euh, euh, ñoom Palaay ma ndeysaan ñoom dem nañu yàlla leen yàlla yërëm. ak ñoom sëñ Abdou ñëpp sëñ Abdou. cinéaste la woon. waaw moom cinéaste là, bon euh, dans na dem par exemple na Burkina kii est pour def ay qui de cinéma ak mhm. et puis du tournage yooyu bon il a il est bien vrai que sëñ Mansour tam def na cinéma. Mhm. mais c'est Abdou moom da daf daf ko kii daal métier am la woon sa maadu sax nee na ko waaw. Mhm. lu lu lu tax ngay def cinéma. c'est Abdou ne cinéma bari na ay kii am na ay scénariste mhm. am na ay producteur xam nga yooyu yëpp mi ngi ci li ci nekk bari na daal mhm. ak yooyu moo tax nag man ni sëñ Mansour sama pap sëñ Bay Mansour mhm. bi mu lay wax naan yow yaay xalifa si di jëmi sëñ Babacar Alaaji Maalik sa dimension audience internationale foofu lay waxee euh. parce que carte internationale bi sëñ Mansour am Alaaji Maalik la génne bitim réew seede yàlla waaw loolu ci dimension bobu la koy parce que même kii bi nek États-Unis am na benn juma. moom moo euh, presque li ci ëpp mom moko financer financé. waaw mu def demande beeg yooyu mhm. euh sëñ Moustapha nek na nit ko xamni ni. Mhm. kenn mësu ko ñeme du état du kenn. te li Sidi Hadj Malick noonu sama ndenkané ba ca Dakar. Mhm. la prescule de carver ci loxo Seydi Djamil la nekkoon. est-ce que. sëñ <laughs> Mansour bi muy politique 100 la am ci ci ci Petite Côte bi. waaw. de ce fait que nit te ñëpp daan ñëw foofu di añ waa université école yi ne lycée yi nekk foofu waa marché Tilène Sandaga ku mës a jaay ba kii sax foofu ngay ñëw bon de ce nekk na benn am na benn attitude boo xam ni ak caractère boo xam ni kenn ñemewu ko kenn yebu ko te dafa amoon benn structure bu mu amoon tout est moom dafa organisé woon am bureau fédéral am groupement mu xaddam am groupe xuddaam am organisateurs yi groupe bâche ñëpp dañu amoon dasa ce fait que restauration yëpp dafa amoon de ce bu dara xewee dañuy réunion à tout moment dañuy réunion coordonné réunion bi ba nga xam ni organisation bi day day impeccable waaw moo tax nekk na nit koo xam ni kenn mënu ko fay parce que moom moo euh, nekkoon digganteem ak papaam yi mhm. euh, jox leen xorma mhm. Euh, sa maam Abdou nee da daan jël euh, yére euh, kii sa maam xalifa yi mhm. non maam xaysaal moo daan jël yére maam xalifa yi mhm. ni ko sëñ Babacar séddale ko sa rakk yi yaayam soxna um xay sàll moo def loolu mhm. maam xay sàll maam Malick Sall maam maam xay sàll ak maam Maram Sall sama turandoo ak soxna Xadi ñooñu ñëpp ay sëram lañu. ñoo nekkoon Louga. Euh, léegi nag euh, après nag mu ñëw Tëngéej. bi mu ñëwee Tëngéej euh, fa kii nekkoon ndax ñoom sama turandoo dafa nekkoon xaritu sëñ Babacar. sa maam Babacar daf ko fon fonkoon ndax jigéen ju mokkaloon alxuraan la. ndeysaan macha allah. am na ku ko ma a bëgg sax. bi mu ko bindee lettre daf ko ni daf ko delloo lettre bi ni ko dem xaaral ba dégg arab soog ma bind. mokkulum alxuraanam ak ak ak ak kiiwam ci alxuraan. lu ci bare moom la sëñ Babacar daan communiquer mhm. moom la daan waxtaan moom la daan defal loolu. moo tax nag sëñ ko fonkoon ko sam Baba fonkoon ko <laughs> waaw loolu moo tax nag mu indi turandoo bi daal ndax tellement ci côté intellectuel bi daf ci di ci <laughs> woon daal ndeysaan waaw dëgg moo tax turandoo dafa am solo dafa foor loolu dëgg la loolu dëgg dëgg la bàjjan eh, Ndeye Marème xam naa incha allah sax eh, uh-huh. Oustaz daam dina ñëw léegi rek uh-huh. am lu mu sof ci kan mooy sëriñ Serigne Moustapha Sy Djamil macha allah uh-huh. waaye ku ne xam na ni ngay soxna sunu papa Serigne Babacar Sy Abdou tey jii ana ban témoignage rek nga ñu mënoon defal ci sunu papa Serigne Babacar Sy Abdou. waaw sëñ Babacar Sy Abdou continuation Seydi Djamil la. ndeysaan barki démb dama ko ni yow ndoonu sëñ Babacar nga yor. ndax ma ne ko moo indi tey. Mhm. sam papa Cheikh ni nga dem ca toog raw du sëñ Babacar. nga gàmm. Mhm. waaw xoolal boobu man euh, boobu façon. Mhm. mu yebal Pape Malick ci ñoom Pape Sëñ Bay. li sëriñ na dem ca wétali sam waa lu rafetoon noonu. Mhm. kenn dara dara gënu ko kii kenn mësu ko gis. Mhm. léegi nag sëñ Baye Abdou. Mhm. dafa bari lu mu nuroog Seydi Jamil te sëñ Baye Abdou wàllu muñam. wàllu tekkam. wàllu dalam. ba nga xam ni euh, nangul ñëpp nag. parce que ñëpp ko gërëm ñëpp. xale mag ndaw frère am yeeg grand frère am yeeg yëpp. tout le temps ci ndigal lay wey mhm. day jékki sa paap sañ bay yónni ko jékki sa paap moo di sa saa mhm. wala borom daara ji foo ko ci yónni rek mu jóg du ci tek bat mhm. wa non lay def de ce fait que l'orientation boobu et puis dara sonaluko comme c'est di jëmee rek moom xëccuwul dara kiiwul dara waaw moom dafa il est indifférent à beaucoup de choses de ce fait que te ni ma ko gisee dafa nek nit koo xam ni moo du mbaaxam foo ko natt weesu na defal nit lu ne Mhm. sonn ci lu ne. Mhm. pour nit réussir. waaw xam naa moom bu ko yàlla joxoon alal moom kenn waxatu ko. waaw vraiment waaye nag yàlla jox na ñu ko jàppale. Mhm. ay taalibe yow xam ni lu mu fett si rek ñu ñu ñu ñu exécuté ko waaw wax dëgg yàlla nekk na nit koo xam ni ku baax la mhm. te vraiment jàppale na waa ko Seydi Djamil bu baax a baax mhm. tabax kër dara xew mu ñëw indi matériel daara du fi manqué mu ñëw toog waxtaanal leen mhm. vraiment tamit moom it kenn mënu ko fay wax dëgg yàlla yaayam tam aussi noonu la mel maam Khady baax ba bëgg a dee bëggam ba bëgg a dee vraiment moom moom it kenn mënu ko fay wax dëgg yàlla di leen ziar ñoom ak sam mhm. ñoom bañin umu bañin fas yi mhm. ah, di ziaraale tam sama sœur mhm. ñoom soxna umu soxna asi ñoom soxna fas si ñoom soxna sofi ak um ko som waaw ndax ñaari um la um ko soom la ak um xayri borom waañ ak soxna maam daba ah ñu ngi leen di gërëm bu baax daal wax dëgg yàlla di gërëm tam suñu yaay yi ndax eh, tey ñun am nañu tuuru famille boo xam ni tata Xadi Seck sama rakk yaay moo moo ki ñu tuddee Duuta Seck ñoo bokk mm-hmm. baay. ndax Duuta Seck papaam ak sama papa yaay ñoo bokk ndey ak baay. Mm-hmm. waaw moom sama papa yaay lañ ko tudd Ablaye Seck la tudd mais mm-hmm. papaam moo tudd Duuta. ñu topp Duuta bi ba loolu lañ. waaw léegi nag euh, ci contexte boobu. moom mi ngi gérer ndax tuur bi am na ay natt. am na biir màkk am na lépp. vraiment dafa dafa jàppale famille bi moom ak ñoom tata Sophie tata Ndeye Yacine mm-hmm. ñoom ñëpp kenn mën leen fay te tour bi yàgg na mm-hmm. ren rek ñeenti billets marqué moo ci génn waaw te kon mi ngi def loo xam ne di regrouper mm-hmm. famille bi euh, ci bu baax a baax wax dëgg yàlla moo tax nag ñu ngi kontaan ci moom bu baax a baax ah, di nuyu itam suñu càmmiñ du sec moom tam ma nga Maroc wax dëgg yàlla invité ñu Maroc defal ñu lu ne waaw ya, vraiment mhm. kontaan nañ ci moom moom tamit ya. wax dëgg yàlla ndeysaan macha allah ya. jërëjëf bàjjan loolu am na solo waaye boo waxee mbaax gi nga xam ci sunu papa Serigne Babacar Sy Abdou mhm. Danu koy gën a dëggal rek macha allah ndax mhm. eh, saa su ne moo ko nee naa wax ju ne day tingoom seedeem te ku ne xam na ni réew mi yëpp a nangu mbaaxam macha allah yal na yàlla may ko gudd fan gu ànd ak wér si Malick Fawad macha allah baax loolu bëgg asfiyaay waaye bëgg jullit ñëpp waaw loolu dëgg la loolu dëgg la loolu dëgg la gudd fan gu ànd ak wér macha allah xam naa Oustaz Dame da nga ñuy sofal tuuti rek ci sëriñ Moustapha Sy Jamil incha allah après ñu daal di àggaleek sunu bàjjan macha allah waxtaan wi Oustaz Dame ku ne xam na ni macha allah yow moom sëriñ Moustapha Sy Jamil daal <laughs> mooy sa séddoo macha allah yaa Oustaz <laughs> ورضي الله عن تاج العارفين وجميع أحبابه ومريديه أذكر منهم مولانا الشيخ الحاج مالك وجميع أبنائه وأحفاده أيها التلفزة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله maa ngi nuyu بيب جي جمتكاي بي jumtukaay فرارك الله مو جمتكاي farakallaahu mooy al asfiya mooy ñi nga xam ne yàlla moo leen sellal kon nag yàlla na yàlla dugal sellam ci seen biir groupe bi ci barke Seydi Hadji Malick yàlla yàlla defal leen jàmm niim sëñ Ma mm-hmm. di ko jox ziyaaram mm-hmm. ndax moom borom xam-xam la intellectuel mm-hmm. la waaye ci deret ji nag suñu sëriñ la ñu ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam yoo ko wér soxna Fatou fi mu joxe kàddu gi moom dana waar. torop torop sax. ndax da ñëw ci université privée bi. Mhm. fii université privée la. Mhm. ndeysaan. ndax lu tax wax la ko. Mhm. ki ñu toogal. <laughs> bu fi toogee ci moom mbooleem xam-xam bu ñuy jàngale université boo toogee mu nàmpal la ko. wallaay ndeysaan. est ba noppi nàmpal la loo xam ne waa université amuñu ko. mu jaamu yàlla. ndeysaan est soxna si damay wax ne. ay xalaatam lii tuuru di ball ci moom di génn ci xelam. Mhm. defar na plante. ay kàddu yu ndaw la lay wax mu defar sa àdduna ak àllaaxira. ndeysaan allah. ba ko dee maa ngi koy wax ma ne ko kàddu yi ngay wax jógewul ci sa xel. Mhm. sa ruux mooy jaamu yàlla du sotti sa xel. di ko di ko alimenté. ndeysaan. Mhm. boo toogee moom dégg ci moom xam-xam boo xam ne fabarakallaahu benn baat ñaari baat defar àdduna. dëgg loolu nag moo lay wan kan mooy Seex Sidi Mouhamadul Moustapha wallaay <laughs> koo xam ni. ñi mu njabootee jigéen ñoo raw góor ñi yàlla yuy tudd. Mm-hmm. te loolu lu wér la. ndeysaan. asaaruna tadullu alayna. Mm-hmm. soo bëggee xam góor yàlla xool li fi bàyyi. Mm-hmm. waxuma Serigne Mansour Jamil waxuma ko. kooku dimension am waa Sénégal xamuñu. te si sëñ Moustapha laa gëmee ne tekk ak noppi. du tee yàlla publier la. góor gi dund na ba génn àdduna tekk ak noppi la def waaye tekk ak noppi googu defar na ñoo xam ni fu ñu waxee jommal ñuy wax muy Seex Sidi Mahamadul Moustapha waaye njaboote na ñoo xam ni bàyyi fi meññ na ñoo xam ni bàyyi fi kenn koo ci làmb mu daj li nga bëgg ci àdduna ak àllaaxira di ziar suñu sang ba sëñ Mansour di ko ñaanal yàlla yenn bi yàlla na gën a diis te teel a ko amiin incha yan mu oyof amul njëriñ. Mhm. te ñoom liñ doon mënu oyof. Mhm. kan mooy Sidi Jamil moom mel ni soxna ma rek loolu doy na. dëgg la wallaahi ndeysaan. rek ci xam-xam. boo mhm. dégg. ci digg jamono. <laughs> ndeysaan damay wax ne sëriñ buy jàppale taalibe moom laa ko gisee. ndeysaan. wallaahi la azim su la woowee def def loolu dara sax. boo yéexee mu yónnee loo xam mun na def loolu fukki yoon. ndeysaan loolu nag jikko la. sant si. ci askan yomb na mais sant si jikko moo jafe. la. sëñ Abdou Amin Alamin laa dégg mos dégg mu wax ne ko sant nga sant nga sant bu ba noppi da nga oyof ndax ñu ñeme la. ndeysaan <laughs> ndax ñu ñeme la. ndax wa xaada maa xaada. Mm-hmm. laakin laa yumaasalu. min mm-hmm. tawaaduin mm-hmm. wa xushuuil xalbi waratam. ndeysaan. Cheikh Al Hadj Malick nee na yéen li yéen bii diis diis diis. li yéex bii rëy rëy rëy. noonu la oyofee moom Seydina Mouhamed. jërëjëf Mouhamadou Ndiaye Jamil mhm. ndeysaan waaye Seydi Hadji Malick yàlla ñu ko yàlla fay xoolal day tagg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaye ci biir tagg bi ci ngay déggaale Serigne Moustapha mhm. ndax mooy turandoo yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa haada maa haada mhm. lakin laa yumaathalu min tawaadu Seydi Jamil turandoo rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mi ngi judd 1916 moom ci góor ci njaboot ci la Cheikh El Hadj Malick tëfli ci noppam tudd ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est-ce que. ca la ca xew la xew ca. Mm-hmm. maam Malick Sall toog Seydi Hadj Malick toog. Mm-hmm. ñu jox ko turu Moustapha di turu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. la ca xew yëpp. Mm-hmm. ca course gëmute yëpp. maam Malick Sall ñu ko xam nga ni mu laaj jox ko ko. ndeysaan mu ne kon nañ ko ko far joxat. kon loolu doy na ishaara. wallaay wallaay doy na junj ne kii jaamu ko te yàlla lay def.

góor goo xam ne ñoo tañ koo dañ ko dañ koo dañ ko miin te yebuñu ko wa xushuu'il qalb am ragal yàlla wu xol moom Seydi Djamil ragal yàlla cër ci ay jëmm loolu yomb na mooy rey say cër sëgg dox nànk waaye xol bu connecté wu ci taqwa moo jafe war tamit ak kersa goo xam ne sa kersa googu nga am tax sa lam kenn musul dégg lu ñaaw kenn musul dégg Seydi Djamil wax wax kàdd goo xam ne guñ naa accam mhm. kenn musu koo dégg góor googu nag moom la ngënk mag jur mooy sëriñ Babacar Si Abu Bikr mhm. jommal góoru yàlla yi sëriñ Babacar nga xam ma waxoon allahuma droma àdduna jëm asamaan lu mu jaar fi ma vérifié ko mhm. di xutbul fàddul jaamia mhm. góor googu nga xam ne bokk na ca xam-xam mu borom xam-xam yi nat ko ci wilaay mu jommal borom wëli yi natt ko ci dégg jamono moom Serigne Babacar Sy kooku la Serigne Moustapha mooy taawam. est-ce que. mu jox ko bi nag ngënk boo xam ne ngënk la ci ngënk yi mooy Cheikh Al Hadj Mansour. bu mag ba. Mhm. mu yar ko. ndeysaan. kon. <laughs> est-ce que. ki sama am Serigne Hadj Malick. Mhm. nga xam ne tabaarakallaahu innal uruq dassaasa. Mhm. sirib day rogalaat. Serigne Hadj Malick wax na Serigne Babacar. mu rogal Serigne Moustapha. alaaji Mansour yëpp ci moom. wallaay ci moom. Eh. kon laaxaroo mu mel ni mu mel. Mhm. su <laughs> ko bëggee xam nag. Mhm. borom daara ji dafa seer si moom borom daara ji sëñ Mansour. Mhm. man borom daara ji baa xam jaaxal na ma. koo xam day woy doomu wut jëm. ci waxin olof ak dégg olof. di woy doomu wut jëm. tagg tagg wuñ ci yaayam maanaam doomu wuñ ci yaayam. lay lay tagg taggaale doom ji. ci benn bëyit boo xam bëyit bi doy na lépp dafa wax ne xat anjabat tilkal afifatu ayatan huwa mustafa ka sammiyihi l adnani xat anjabat deux ans مصطفى ومصطفى كسمير عدنان soxna Fatou mhm. borom daara ji nee na mhm. xat ca dëgg-dëgg xat lu wér la mhm. xat li may wax wallahi am na ñu ko lan moo am lan moo wér mu ne anjabat meññ ku meññ tilkala afifa boobu jigéen bu ñoŋewu jigéen bu jàpp ñamburam jigéen boo xam ne borom xam-xam la. jigéen bu ragal yàlla mooy soxna Umu Xayri Sall. lan la mel ni aayatan kéemtaanu jamono. huwa Moustapha mooy Seydi Jamil. est-ce que. borom daara ji moo ne sëñ sëñ Moustapha kéemtaanu jamono la aaya la. ñu ko moom nu mu mel mu ne que seen mii la addinaani. fañ ba se rasulullahi foofu la opération. comme turandoom Seydina Mouhamed. loolu doon na seede. loolu dana sëkk ci wax. dana ci seede. kan mooy woy bu jigéen. mooy kin denc bàmmeel 27 ans ci bàmmeel. génne ko sulli ko tuxal ko mu bees tàq. wallaay ndeysaan. loolu kay dana kéemtaan. wallaay loolu kay ñoom wax rek. waaw bu ñu wax <laughs> am na ñu wax wax lu baax am na ñu war baax. wallaay wallaay yàlla yàlla fayal ñu sax si Mouhamadou Moustapha. amiin yaa rabbi góor mm-hmm. mooy suñu wasiila. ndeysaan mooy suñu yaakaar. Mm-hmm. Eh, képp kuy seetaan daal dëgg-dëgg ginnaaw bi suñu bàjjen Ndeye Marème waxee ba noppi Oustaz Dame Ba xam ngeen kan moy Serigne Moustapha Sy Jamil macha allah Badiane macha allah defe naa ne xoli toy na fi mu. wa lol deug la lol eh, deug la lol deug la loolu dëgg la ndax daal li gëna daw yaram. hmm Seydi jëmi dafa dudd lepp hmm bàyyi lepp Tiwaawan. ndessa ñew Dakar jël Médine bàyyi mhm. ko ay jigeenam hmm albatu ko tabaxal len ko. yor len mhm. di len dundal. Mhm. sama ñoom mbàjjan amuñu benn problème lu ñu soxla rek ñëw sa mbaapa moo leen defal lépp mm-hmm. kër gi loolu la cosaanoo mm-hmm. ñoom ñëpp loolu lañu def ñoom ñëpp mm-hmm. euh, loolu la ma euh, doon wax naan sama um dafa daan wax sëñ Babacar jëlal li nga yor di ci sédd sa ay kenn ku ci ne noonu nga def nag ñoom ñëpp nag moo xam maam moo xam papa moo xam càmmi ñoom ñëpp noonu la ñuy defal seen sëriñ tey sëñ Mansour maa maa ngi jéggul sax maa ngi koy fàttal sëñ Mansour bu ndaw mhm. moom lañ tudde borom daara ji bii bal xaw mi lañ ko tudde mhm. euh, nekk entrepreneur mhm. ne ca mbaaw moom it baax lool mën a jàppale nit ñi at mu ne ponkalum nag moom lañ indi ci kër gi ni moo ko jàppale sëñ Mansour jël bureau sëñ Mansour ba ca bi ba ca Fass yëpp mu defaral ko ko waaw moom nekkoon Paris wax dëgg yàlla ak rakkam soxna um xayri mooy séeg sëñ ab bu Faas ak soxna Xadi moo nekk Canada ñoom ñëpp maa ngi leen di leen ziar baax lool kër Alaaji Maalik ñëpp a baax te boo déggee ñun diw dafa baax rek diw dafa yaru mënoo baax te yaru woo. dëgg la <laughs> yar c'est un trésor. Mhm. c'est un patrimoine. Mhm. il faut que nit ñi yaru. na nit ñi dal ànd ak sakkiina. wallaay sëñ jërëjëf. Mhm. sëñ Seydi Djamil am na heure boo xam ni bu mësaan euh, heure fajar wala timis nii kenn du jege foofu peron boobu kenn du ko jege. day na ci beneen àll. tant que parewul doo fa jege wala moom mooy pare jóg woo la. waaw bu paree bu dee timis bi. Mame Malick moo ko daan suivre journal télévisé boobu ndekk mi ngi koy préparé moom lépp daf ko préparé bu fajaree cinq heures mu jóg commencé woote ban heure ngeen di jàng moo di yitteem rigueur moo amul fenn ndax éducation comportement la comportement lan moo ko joxe discipline éducation mooy lan mooy responsabilité le sens de la responsabilité lu koy joxe rigueur yooyu ñooy indi sagesse boo déggee ñu ni mbir dox responsabilité tax mhm. responsabilité moo amatul ci famille yi mhm. moo amatul ci école yi moo amatul fenn moom moo réer mër mhm. ñëpp parce qu'il y a trop de problèmes sociaux il y a trop de problèmes te tey euh, les problèmes yi am ci biir famille yi xale yu bare ci ay enfants divorcés lañuy lañuy la ñuy ci euh, ci ci euh, divorce la ñuy évoluer mom lañuy nek ci école bi mom lañuy nek ci kigi tous les enfants sont désemparés man dama ñeewanteel jeune yi il y a la petite enfance il y a la jeunesse na adulte yi encadré jeunes ñu encadré petite enfance wallahi adina bi liko défar lu yomb la dégg-dégg la laaj rek motax man ni agir parce que il faut ñu gëmlo nit ñi gëmlo xalé yi ni leen lu baax amna Ah, mhm. ñu versé wu ci lu positif. Mhm. te équi te te àddina temps moo fi ne ak équilibre. Mhm. ak espace. temps sunu borom moo ko moom. espace moom la doomu aadama di occupé. ci biir espace bi lay xëcc ci équilibre ñun ñëpp ci équilibre la ñuy jëfandiku dañ ci la parce que foog nga am équilibre stabilité pour mën a nekk. yaa ngi soxla loo lekk loo naan loo sàmme sa njaboot sutur loo sutur rek ma Abdou nee na yaa sàttaaru ak yaa salaamu dafa doy lu ne parce que yaa sàttaaru ismulaay axsam la boo xam ni euh, euh, euh, asmaal husna la boo xam ni li ci ëmb dafa bare ci wàllu wërsëg kon nag yaa salaamu tam mhm. jàmm ci la lépp ne kon nag ñun loolu la war a wut mhm. jigéen ñi nañu takk seen digg ñi ngi koy takk sax di jigéen ñi ay jàmbaar lañu mais bi mooy li may wax ni il y a des femmes qui souffrent il y a des femmes qui investissent ñoom dañu boole investissement ak gaspillage wallaahi wallaahi dëgg la da ngay liggéey vingt ans ñoo yemale ko daallinkoor ga daal di jóg njaag nangul <laughs> loolu moo ñu tàddeel amul benn pays africain boo gis loolu mhm, mhm. ñun dong ñoo koy def waaye si jërëjëf <laughs> mais ñaag nangul dafa sa benn cadeau rek mhm. man ñu bari dama leen conseillé jëlal euh, benn sachet nga def ci tissu bi jël euh, kii bu jaune bi nga bind jeex na def ko ci benn valise benn ay quelques nit yóbbu ko. mais tante njaag ndagul moment boobu. les mamans benn si ñi ngi investir. ñi ngi réaliser. dem bay investir ci dans l' industrie. c'est ça. nañu alerter jigéen ñi. Mhm, mhm. nañu bàyyi gaspillage bi. surtout te parce que jigéen ñi ñi ngi souffrir ba ci démb dama seetaan ci tele bi marché bi jigéen ñi ni ñoom ñu ngi lal di jaay. mais kenn jëndul. nan lañ mëna a ci niveau boobu cadeau xale yi ils sont restés en rade et la nature a horreur du vide mm-hmm. li ñuy wax naan si je ne savais si vieillesse pouvait mm-hmm. mag xamna mais mënul mm-hmm. Xalé xamul li xew nañuy dimbali xalé yi yàlla jàmm lañu may nañu may suñu bop jamm. may suñu bop jamm. Moy respecter heure bi le temps. le temps, vous n'êtes pas utilisé. Parce que vous avez des gens qui ont des gens. Vous avez des gens qui gérer des Toi, vous avez des gens qui ont des gens. Vous avez des grandes écoles. Vous avez des programmes. Vous euh, avez des industries. Le secteur secondaire. Vous Tant que nous faisons l'extraction du produit, l'exploitation, la sidérurgie, la métallurgie l'industrie lourde l'industrie de base Nous tant que nous, ñun suñu développement day des l'Angleterre a été la première puissance mondiale économique et ça s'est propagé au niveau de l'Europe États-Unis vous avez fait jël relais bi moom dafa def stratégie la def dem wut xaalis Vous ay fait ciel ni les mhm. chinois ont fait nu def révolution européenne bi jël stratégie américaine le mutisme domine le monde Ne <laughs> ñu pat ñëw di mhm. de ce fait que mhm. il faut que nous puissions exploiter lu ñu am kees gii rek a <coughs> Sénégal on a 750 km de côte du Cap à Saint-Louis Saint-Louis Fouta on a le fleuve on a le chute de Ndindi On a 14 différents cours d'eau au Sénégal. des lac, lagune, marigot, fleuve, euh, mer, nappe d'eau. Le Sénégal ne manque de rien. La Région de Kiesbirek, mhm. tu as le gaz de Ngaïgaï, mhm. tu as le pétrole de, Kayar, mhm. tu as les carrières au niveau de Dias. Euh, Euh, euh, fer bi euh, am nga le phosphate de Taïba am nga le zircon mën naa ni li ñuy wax ci Sénégal yi dafa mel ne région de Thiès bii tey la ko yàlla regroupé xoolal loolu rek waa bàjjan bàjjan nga baal ma doguma la mais en tant que intellectuel bàjjan lan moo tax nga effacé bàjjan est-ce que mënuñu laa dénk réew mi tamit dégg ah, non non xam nga dañ koy bàjjan non c'est man ci sama salle bi maa ngi ciy orienté lu mm. bari Mm-hmm. maa ngi ciy orienté lu bare maa ngi révolutionné parce que bon même interview may def ni ni ñi ñu jariñu mais xam nga Sénégal question niveau ak mentalité la tay man buma ma nekkoon beneen dëkk mm-hmm. dañ may préparer yépp jox ma benn bureau mm-hmm. financé ma ni ma yow li nga wara a gérer parce que évolution nit jafewul tay Inde système de cotisation 25000 lañ déparé ba développer sen rew tay boy cette structure yu bari léegi à travers le monde indien yi ñoo fa euh, le premier ministre Londres bu Londres bi c'est un indien euh, Google indien la te tey ñoom ñoo nekk Sénégal li ma proposé ba Ndombay dama ni len nañu def ben système moy nañu def ay fondation comme le système de waqf maa ngi fay nuyu sax Pa Abou Ndiaye am kii au passage. moom moo géré bu Sénégal bi. Mhm. Euh, le système du waqf. Euh, moom la ñuy géré moom la Dubaï développé réewam. Mhm. mooy géré Kaaba ji cotisation mooy géré lépp parce que am na koo xam ne un milliard la am am na koo xam ne mille francs lay dàqanteel. Mhm. mais ku ne na nga indi apporter une brique à l'édifice. tey xoolal am na pays boo xam ne nit ñi xamuñu ko sax miinuñu ko muy Botswana loolu mosoo leen loolu leen sax dégg ñooñu ña nga yore seen dëkk di évoluer kenn xamu leen kenn déggu leen ñoo am lépp nag te suñ dara jagul ah <laughs> kon réew mi war nañ ko xoolaat nag non non on a tout ça mais ba pare fàtte woon région de Thiès la zone de Niayes kon lépp a ngi Thiès mm-hmm. xoolal tey à Saint-Louis mm-hmm. gaz bi pétrole bi. te zircon mën naa ni Sénégal yëpp zircon la. mais nit ñi xamuñu ko. est-ce que oustaz nañu organisé wu réew mi macha allah ñu jox ko bàjjan. Eh, dégg nga dégg nga ëpp naa de. <laughs> non bàjjan dañ la a jox xam nga xam nga Seydi Djamil dafa am lu mu mm-hmm. euh, maanaam. mën a am lépp mais xañ ko sa bopp. Mm-hmm. dëgg la ndeysaan. da ngay toll ci dimension yoo xam ni leneen da lay dàqal loolu. na nga dund rek. Mm-hmm. loo lekk loo naan. c'est-à-dire ñun ñoo bëgg lu ëpp. opulence lañ bëgg. Mhm. te loolu baaxul. Mhm. yow yaa ngi jël alal ji denc ko mais ñaata milliardaire ñoo ne fii. Mhm. ñaata milliardaire or yi dañ ko fii bàyyi. kër yi dañ ko fii bàyyi. ana diw léegi la def malaise. ñaata ñaata nit ñoo def fan yi malaise ay kilifa. ba ci kii Pape euh, Sagna ki nekk maire euh, Fass Gueule Tapée bi Gueule Tapée kii xaw euh, Mermoz kii nu mu tuddati amitié defe naa Gueule Tapée waaw waaw fan ok waaw ñaata nit ñoo def ñoo ñëpp ñu ngi leen au passage ñu ngi leen di jaale. ndeysaan mhm, nit ñi yàlla wan nañu bis bu ne nii ñun ñoo déggul gisuñu. ñu mhm. xoolal ay Malaisie kenn déggu leen xamu leen woon Inde ci ñëw gënoon pauvre ci monde bi. ay Dubaay déggoo leen woon. Mhm. Xadafi. mais des ba de ji xott ko rek dugal ci ay tuyaux. est-ce que <laughs> actuellement presse bi lan lay def Bou bou bu kii bi mi Du quoi d'affaire? mais pourtant alal am na fi. Mhm. li milliardaire am fii. Mhm. dañ leen a xamul mais xamuñu ni ñu koy utiliser li wax agir. pour investir. agir vecteur de développement la. c'est-à-dire da investir. réaliser mhm. réussir ki mhm. kaw loolu da ngay organiser gérer planifier mhm. tubaab bi loolu lañ dominer monde bi management donc lañ ko dominer te loolu mën na ne man de bu ma sañoon deux pièces yi mètre deux mille ak mille cinq cent yi mais nit sonnatul man lu ma sol dañ ma ko may ndeysaan waaw kii sama benn turandoo ma ko may sama njaboot ju baax waaw sax soxna Marème bu Norvège moom ko may waaw lu ma sol loo gis ma kii ko dañ ma ko may mm-hmm. man li may jënd du bari mm-hmm. waaw moo bëggoon nag boo yoree cent mille francs mm-hmm. yore di soxla da ngay dispatché cent mille yi ci di soxla yi bi cinq mille bii di mille bii quatre mille bii trois mille bala ngay amaat problème yàlla jox la xéewal mais nañu wax nit ñi nañu créer ay fondation na ko famille yi euh, organisé na ko quartier yi organisé. Mhm. bu ko defee ñu cotiser. Mhm. léegi bu tayee ñu defar forage. Mhm. bu ëllëgee ñu defar euh, euh, ci panneau solaire. bu gën a ëllëgee ñu ne centre de santé bi day amul matériel ñu jënd. wala ñu ne école bi amul matériel ñu jënd. mais tout chaque individu chaque sénégalais yaay defar Sénégal. Jolof ak Fuuta. état defaru ko. Mhm. ñoom ñoo ko defaral seen bopp. dëgg la <laughs> macha allah. Uh-huh. kon tey armoire yi fees na. Mhm. ak or. ak ci mais nee naa xale yéen ngi wax naan da ngeen bëgg dem Europe. mais visa yi mi ngi seen armoire yaay. dëgg la de. or bi ñuy denc takku mais mi ngi biir kii bi. wallaahi ak wér. tey jii 1000 francs mën na commencer commerce. wallaahi waaw. <laughs> toutes les femmes à travers le monde. Mhm. ñu ngi investir. de réaliser pour réussir waaw c'est un problème extraire le produit l'exploiter le transformer en produit fini c'est un problème <laughs> moyen yooyu la un problème. ndeysaan macha mhm. allah ya. jërëjëf si si Mali yàlla nga gudd fan allahumma amiin tey di lancé appel ndax nag dëgg dëgg taxawu la gën gi taxawu jot na jot na jaadu na ci xalaat bu rafet bu sell bi macha allah macha allah mhm. yal na yàlla defal la cat amiin yàlla defal la jàmm bi rek jàmm biti xam naa fi mu ne dañ lay bàyyi rek mhm. macha allah si Madi nga daal di joxe kàddu gu mujj gi ak ana la ka ngay tàggatoo rek incha allah loolu dëgg la loolu dëgg la sànq sax maa ngi wax ma la dama def euh, euh, euh, dama def informatique. Mhm. analyste programmeur. Mhm. après def stage IBM. pare woon naa ba pare dafa mhm. fekk na nee naa moment boobu la tasee Sidi Djim feebar. après ma nekk ak moom. mais defoon naa étude formation yi ba pare. mais malheureusement nag loolu moo tax. mujj gi rek xam nga. kilifa moom bu demee. lu bari day changer. loolu moo tax. waaye nag jooy ñu dara ndax suñuy càmmiñ ñi ngi fi. di ñu mhm. jàppale di nit dimbali. ah bu baax a baax wax dëgg yàlla fu ñu toll ñu ngi ñuy nemmeeku ñu ngi woote ñu ngi ñuy jàppale bu dara xewee ñu ñëw. Mhm. du ne nañ fi indi. waaw di nuyuwaale itam ñoom Sidi Ahmed ak mhm. ñoom euh, euh, maam Ousmane ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyuwaale. Ah, di leen ziar bu baax. Ah, di xam di wax daal ni Seydi Djamil. Euh, loolu domaine familial bi rek la. mais mhm. dugguma sax ci domaine lu digganteem ak taalibe yi. Mhm. waaw parce que euh, organisation diggante waalo. Mhm. njàmbur. Euh, kajoor. Cap Vert. waaw force boobu mu am. jamono bi mu fi ne. booy seet moom rek nga fi doon dégg ay daayiram. waaw ndax waalo waalo yàgg nañu jaar fii di dem di ziyaari fas waa Louga waa Ndande yëpp. yàgg jaar de ce fait que euh, euh, cohérence boobu système d'organisation ak comportement ak éducation parce que moom yëpp la discipline boole rigueur responsabilité boole sagesse donc c'est un exemple mhm. parmi tant d'autres te yi Euh, nañuy na seen base na nekk jaamu yàlla. Mm-hmm. parce que stabilité ci jaamu xoola bi fi mag ñi nekkee daawoo dégg dara. Mm-hmm. kenn daawul dégg dara dara daawul yëngatu tam. Mm-hmm. kon jaamu yàlla mooy baas bi. xale yi bari sax yëpp a ngi ci internet bi ñu jàng alxuraan boo ko defee. Uh. am na loo xam ne tey ngay jéggulu def istighfar moo ci jiitu. Euh, tudd yàlla def laa ilaha illallah. wallaay ndeysaan. def salaatu na bi wala nga def salaatul faatiha. salaatul faatiha nag. Euh, dafa nekk loo xam ne dafa foor. moo tax nit ñi koy def mode di def douze mille ak yooyu. dafa bari leer. te yow xamoo ndax am nga statut boobu pour mën a def loolu. kon salaatu na bi moo gën a sedd. salaatu faatiha nañ ciy def lu yem rek. di jéggulu istighfar mag ñi dañu wax ni jéggulu waaye dafa làq ubbi. ndeysaan waaw moom boppam. waaw waaw ci la lépp ne. Ah. tur yàlla yi ko tënk yëpp. Euh, fat ko kese la. Mm-hmm. sëñ Babacar Abdou Aziz moom lool rek lay joxe. Mm-hmm. dog boo ko mënti laaj lool la lay jox. Mm-hmm. te dafa gën a yomb. mën nga foo toll di ko di di ko def waaw. c'est il faut que ñuy jaamu yàlla soo gisee. Euh, même asiatique yi. dañu fonk jaamu yàlla. dañuy dañuy am ñoom lu ñu gëm. acide mhm. ñoom seen beneen benn matériel bu lu muy génn. Mhm. dañuy yóbbu dem ñaanal ko ba pare. est-ce que soo ko génne. <laughs> assi yàlla <laughs> waaw te ñun fii la ñuy bayee loolu. Mhm. mais dafa des. léegi nag di gërëm soxna Faatu ndax émission yi am na solo. ndax émission yeete la. nit ñi am nañu problème mais munuñu ko wax. bu ko defee boo ubbee. problème psychologie la rek xam nga tay euh, nit ki amna problème ñëw bëgg nga dimbali ko ci ben euh, dalal xelam ba euh am ko ko dimbali ci alal waye nak ñun suñu problème ñoko indi suñu bop de parce que dañoo luñu atone sëñ Maal daf ma waxoon ni boo yenoo détail bu problème ñëwee nga daanu xam nga lu tax détail mooy ngay lijjanti lu sa yoon nekkul <laughs> dëgg la waa léegi bis boo amee problème nooy def da daan <laughs> il faut que nit ñu oriente leen ci ñu yenu lu ñu àttan addina bi dafa simple mhm. bu dee deux pièces yi mhm. mètre mille cinq cent mhm. man ay basin mille francs rek laay kii bu loo gis ma sol ko mu mu dañ ma ko may <laughs> waaw kon daal gaspillage bi ngay bañ non gaspillage bi baaxul parce que y a des femmes qui souffrent à côté billahi il y a des femmes qui souffrent. Mm-hmm. nañu bàyyi xel souffrance bi. am na ñu amul njëgu ordonnance. am na ñu amul njëgu lu ñu fayee seen courant seen ndox. Mm-hmm. yooyu ñaata cas 24 heures sur 24 nga koy gis. mais problème bi mooy nañu organiser wu. c'est que mm-hmm. dafa am koo xam ne dafa am pepp bëgg saako. dëgg la sotti. déedéet mm. bi lu simple da ngay def sa sa li li li li wax now you get what you want do you want more. dégg <laughs> sunu ah, jox ko mi rek. <laughs> est-ce que. Mm-hmm. am nga li nga bëggoon. Mm-hmm. ndax da nga bëggaat mm-hmm. sonal nit ñi. moo tax dañu war a yemale suñu ay bëgg-bëgg. dëgg la xam sa bopp. nee nañu képp koo àbb. Mm-hmm. dafa jënd. dëgg àbb dafa jënd. Mm-hmm. abal ma tame ma lay. Mm-hmm. abal ma bale. abal ma aliment ma xosi. abal ma xorom ma sàppali. ñun loolu rek la ñuy dundee. et c'est tellement alim élémentaire. tey dama ni. télégramme ba appel vidéo. révolution bi ba mu amee ba léegi. waaye yow tubaab yi ñun li ñuy def ni bu ñu ko defoon ndax dinañ téléphoné. yéen di ngeen am caméra. déedéet mais ni nit ñi dellu seen xel ba Fuuta. kan moo tracé tali bi. yow dafa gol garab yi. ramasser garab yi. baliser la terrain bi. defal la ci latérite. defal la ci goudron. defal la ci euh, euh, euh, non béton. defal la ci goudron. ba pare jox la oto jàngal la lu ñu lay dawale yebal la ay assi assistant tabaxal la hôpital tabaxal la ay école ah Dakar ba Casamance ñu defal la lool. Mm. tali yi nekk diggante euh, euh, pays africain yi. Mm. nekk diggante Europe yëpp tey jii bu la neexee jël sa oto départ de France ba dugg Allemagne. Mm. loolu yëpp ku ko tracé. ñun moment boobu lu ñu defar defaruñ dara. dara dañuy xoole rek. il faut que ñu góor góorlu ñun na dañuy ñaan bu ngeen xamee fu milliardaires yi ne mhm. dinaa ci interpeller kenn nag mhm. Moustapha Ndiaye miinu ma ko mhm. turandoo Seydi Djamil la moo Ablaye bu sinikoo ñooy am moom nañuy interpellé na na na na code nekk moroomu milliardaire bi ñu créer une fondation dem Sénégal ñu ñu ñu samp fa fondation bi dëgg yàlla jàppale néew gi doole jàppale néew gi doole ji wutal leen ndox mais am na village yu amul ndox am na village yu amul courant bu ñu amul ñu lu ñu sañ néew bu jigéen ñi wasi ne mais loolu oh. warul am moment boobu yaa ngi ay ay huit huit ak lu ne mm-hmm, mm-hmm. ay jet privé mm-hmm. wala yu mel noonu ñun on n'a pas besoin de tout ça xam nga moo tax nag ci lool lañu ñu war a jublu taxaw ci jafewul. waaw milliardaires yi daal maa ngi leen di interpeller bu ko defee daal ñu taxaw jàppale nit ñi. waaw macha allah yéen it lu ngeen ci mën masata ah, ngeen créé seen fondation dimbalante. même bu ngeen waree am ñu ngeen kii à l'extérieur euh, à l'intérieur du à l'intérieur du pays daal mooy wax ji. ñoom ñoo am problème. ñu ngi tuur ñu ngi tuur meew. ñu ngi tuur euh, jiw yi. jën yi dañ koy kii di muy muy muy nëpp ah. Les ma ont on produit mais on dessine pas on transforme pas. tay xolal tay fi ba Sindia mhm. mhm. ba ba Casamance. usine Sahel bi fiñu défé ciment ba ba Casamance usine fa ne man bu wax industrie La wax. Mhm. Ah. de transformation jën ya nga Casamance nak ya nga Casamance mew ak fromage ki beurre ki mi ngi <laughs> ah tol nga fa Euh, euh, nu mu ti ay tiir ma nga fa. Euh, lem miel ah. salle d'acajou bi mhm. ah. miel ak yëpp a ngi fa. te loolu yëpp dañ ko soxla. dëgg loolu yëpp dañ ko soxla loolu nag produit naturel yooyu. foo dem à travers le monde ay maragu gi Chine ak yooyu yëpp produits yooyu la ñuy utiliser. Mhm. moo tax yooyu yëpp dañ ci war a taxaw. Mhm. wut ay usine tey boo boo génnee ICS gi tey. fii ba Fuuta ana usine ba Richard Toll moo fi ne te moomuñu ko. ci <laughs> suukar si. waaw ah te xoolal foofu la fa ne la vallée du fleuve. luñ fa mën a def même ceeb bi ñu ngi produire. mais waroon nañu fexe ba am ay machine yoo xam ne ñoom ñooy kii loolu mais loolu jënd ko jafewul. ay waay milliardaires yi wuy leen bàyyi milliardaires yi génn leen. <laughs> génn leen te wuy bàyyi ngeen jàppale waa àll bi. bu ko mm-hmm. defee ñu mën a produire. ndeysaan waaw soxna Fatou ñu ngi lay gërëm. <laughs> di gërëm ma Omar. Mm-hmm. Ah, jërëjëf. loolu la gën a dégg aw nañ ci yow tam daal di nuyu sunu maam. sa bàjjan euh, euh, maam Safiatou. waaw waaw waaw waaw bàjjan Safi. bàjjan Safiatou. bàjjan Safi ku baax macha allah ndeysaan. loolu dëgg bàjjan Safi bàjjan mm. Aminta si. wallaay ndeysaan ñoom bàjjan Aïda si. Mm-hmm. bu Pam Modou si. Mm-hmm. ñoom bàjjan Fassé ñoom mm-hmm. bàjjan Umu yëpp sunu bàjjan yëpp. ñu ngi di ñaanal xalifa bi tam. yàlla defal ko jàmm. amiin Pam Maodo tam ñu koy nuyu di ko ziar. borom xam-xam bu rafet bi. Euh, waaw vraiment ñëpp ko kii ci xam-xamam wax dëgg mm-hmm, yàlla. ñoom sëñ Babacar Abdou ñoom ñëpp ñoom Pape Mansour ñoom ñëpp wax dëgg yàlla seen taxawaay ñoom sëñ Cheikh ñoom ñëpp. Mm-hmm. Euh, ñu ngi leen di nuyu di nuyu waa kër. borom daara ji ñoom suñ Cheikh Bakar Al Amin mhm. ñoom Babacar ñoom suñ Moustapha wax dëgg yàlla mhm. ñoom ñoom ñu ngi leen di nuyu macha allah kon nag eh, mbokk yi mi ngi noonu seen émission ganu koor la woon ak sunu bàjjen bàjjen Ndeye Marie macha allah ñu sant ko gërëm ko bu baax ñaanal ko yàlla nag ñaanal ko yàlla surtout yàlla may ko gudd fan bu ànd ak wér <coughs> ndax defe naa ñëw suivrandoo émission bi waaye dégg ngeen xalaat bu rafet bi macha allah mm-hmm. ak euh, ni mu ko génneeg ni mu ko organisé man daal li may ñaan daal mooy ñiy seetaan tey dégg nañ ko jox réew mi incha allah bu ñu ko joxee réew mi lépp jag <coughs> ndeysaan te <coughs> si Malick Fawaade nuyu nañ la aw ci yow nuyu mbooleem njabootu maam Cheikh Seydil Hadji Malick mm-hmm. ndax bu nu limee duñu matal waaye nuyu nañ mbooleem njaboot gi yëpp nuyu sunu bàjjan yep nuyu ñëpp rek macha allah mm-hmm. eh, Seydina Omar Fall góoru ya abi mo moo nekkoon ci caméra yi eh, Mouhamad Lamine Traoré momi it tamit macha allah mo ne ci montage aw ci ñom nuyu mbolem personnel bu Asfiyahi yep yëpp macha allah jaajëfalaat bu baax damjul baax oustaz Dame Diol ci waxtaan waam solo bi waaye El Hadji Ndiaye Jamil macha allah momi tam ak équipe bu mu àndal yëpp eh, macha allah waaye am na solo neex na yàlla defal ñëpp jàmm. Mm-hmm. kon nag di leen jox dig daje rek ci seen beneen numéro ganu mm-hmm. koor mm-hmm. réew mi ndokk lee ci weeru koor shahru ramadan moo bari ngëneel réew mi ndokk lee njot ci safara